maaleykum man la Kayz Fof donc ci suñu xex bi dafa am ñu bari ño xamné comprendre ñu lan motax ñu frustré lan motax ñu jog pour bëgg changer li fi nekk tégaat fi lu bees té ñoo nekk ci dëkk bo xamné dafa am une justice pour ñu pauvres mo am une autre justice pour les riches nekk ci dëkk bo xamné ne pauvres nous entretenir riche yo xamné ñom lo leen di exploiter maltraiter leen considérer leen comme ay moins que rien danoo nek ci dëkk bo xamné amna ay citoyens yo xamné ils ont droit à tout ils ont tous les droits am citoyens yo xamné ils n'ont que des devoirs parce que seen ay droits état bi nekku fi pour garantir ko ñu nek ci dëkk bo xamné au lieu que muy produire des richesses pour euh, pour sa population ay étrangers produisent produire ay richesses exploiter suñu population pour enrichir ay population yo xamné ne sur suñu population donc injustice une pour les ci yenen injustice le monument ñu metti ñu nekk di pour changer les fi nekk remplacer ko ak lu